attention.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 يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقول تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا نون والقلم وما يسطرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Ibrahima Thiam boo toogee danañ la jox fi ngay jàng Serigne Fallou Diagne mën naa waaj Serigne Fallou Diagne waajal nga jege si ndax dafa mel ni fi ngeen toog ak fi ngeen war a tare distance dafa xaw a gudd sëriñ Fallou Diagne waajal nga jege si si wetam Diagne ba pare nga jàngal ñu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين زل سعيهم يوم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فقبل أعمالهم فقبل أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا Cheikh Ibrahima Gaye ñëw na bismillah Cheikh Ibrahima Gaye ba pare nga jàngal ñu a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'laa bismillah assalaamu alaykum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 والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنشئ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر النفعة ذكري sayazakkaru man yaxsha ndax xale yi bu leen fàtte na bis bi duñ ko fàtte de ku si am sa doom buy tari bégal ko bégal ko nga jox ko xaalis te foto ko foto yu rafet dencal ko ko ndax bis bi bis la bu rëy ci xale yi xam naa dañ leen beral côté bu ñuy photo mooy fee ca wetu barrière be ngir liggéey bi gën a taaru xale buy photo rek mën nañ ko yóbbu foofu kon Cheikh Fall Faye moo toog nii déglul tuuti yow itam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 bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabaarakalladhi bi yadihil mulku Ahmad Batoor mën naa jege si Ahmad Batoor Diop li shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو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 إنك لرسول الله بسم الله السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Ahmadou Bator Diop jaajëf njàng mi rafet na jàmbar nga sëriñ Fallou Sow moo si topp mën naa jege si Serigne Fallou Sow bu paree maam Cheikh Ibrahima Fall sëy wala maam Cheikh Ibrahima Fall waaw kay maam Cheikh Ibrahima Fall sëy mën naa jege si gis naa benn waajur def na lu ma neex léegi dinaa ko wax sa kaw bëgg waajur yëpp roy si. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah waaw góor ah ab taalibe day am passé déglu tuuti ñu fi ngay jàng dégg nga. xale yi ñu ngi leen wax ne waajur yi nañu ànd ak ñoom fee photo ku ànd ak sa waaj sa xale fee di ko foto di promo vidéo sinabak lu mu doon defal ba sa xol sedd il faut ñu bégal xale yi loolu dañ ci soññ waajur yëpp nañu bégal xale yi sama doom day tare alquran tey jar na lu ne lu ne lu ne jar na ko ci mbégte bismillahi يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض قارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريع صرصر عاتية سقرها عليهم سبع ليال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 alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi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 الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم duñ ci sori waaye danañ leen limal fooy bi nga xam ne délégation yëpp teew nañ incha allahu taala dinañ ko jàllale waaye ñu wax leen rek ñoo ngi nuyuwaat mbooloo mi ci turu jëwrin yooyu nga xam ne ñoo seq liggéey bi Baye Talla Ndiaye buñ ko si tuddee dina yóbbaale ñëpp di wax ne waajur yi génnagul génn si leen buñ sañoon ku sa doom di tari da nga koy fekkee waaye sa doom tari ba noppi nga ñëw ne sama doom bi mu tari fekkuma fi damaa bëgg mu waat danañ la ko nangul de waaye day xatal programme loolu lañ siy bañ te ni ko bàjjen yi defee gis naa fi bàjjen yoo xam ne bu seen doom di tari danañ waaxu neexal ko waaxu teg dara fee dama ko siy bëgg moom dama koy teel a wax dama ko siy bëgg ku neexal xale yi ku teg dara sa taabul ja booleeg photo xale yi photo yu rafet loolu maa ngi leen koy fàttali yéen waajur yi kon sëñ Adama Ngom déglul oustaz jox la barab bi ngay jàng sëriñ Adama Ngom ba pare nga jàngal ñu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي دلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم يعظكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون حسبك ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون waaw ndax yéen a ngi déglu xale bi li muy jàng. afala taxiluun. macha allah. wastainu bis sobori was sola يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قد نعبه ومنهم من ينتظر Sëriñ Moustapha macha allah ku tudd Moustapha day am Pastef waaye xaaral tuuti oustaz jox la fi ngay jàng bismillah oustaz tànnal ko bara bu muy jàng sëñ Moustapha Jamil ba pare nga jàngal ñu a'udhu billahi minash shaytanir rajim إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن القرآن يقص على بني إسرائيل إسرائيل أقصى الذي هم فيه يختلفون وإنه لهو na jege si Baye Modou déglul oustaz jox la fi ngay jàng bisimilah oustaz. Baye Modou Diop xari ba pare nga jàngal ñu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك faqad istamsaka bil urwatil wuthqa bismillah asalaamaaleykum waaleykum asalaam a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن soxna Seexuna Béthio Doos mi moom itam mu feeñal yéeneem bismillah Seexuna Béthio Doos pare nga jàngal ñu a'udhu billahi minash shaytanir rajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir bismillah assalamu alaykum waaleykum salaam soxna Asta Mbàkke na jege si a'udhu billahi minash shaytanir rajim يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما بجمعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون تذكرون عم يتساءلون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينيه ولسانا وشفتيه وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة Sëriñ Omar Fall ba pare nga jàngal ñu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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا جاء أو منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناه وما له من فروج حسبك dañuy woo rek xale bi si topp di bàyyi Bunaama Badiane bu noppee Serigne Modou Yàdd la ñuy woo bàyyi Bunaama yow a toog bismillah déglul oustaz jox fi ngay tari bàyyi Bunaama bu paree nga jàngal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين من الصادحين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين حسبك sadaqallahul azim macha allah Baye moo di àdd jàng mi rafet na ànd na ak pastif waaye a'uudu billahi minas shaytaanir rajiim laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakumul umura hatta حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد قد نعم ولا من قب يقولوا قد قصنا أمرنا من قبل ويتولون وهم فرحون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن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 inna fatahna laka fatuham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu رحمة عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور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 صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواقد رب السماوات ربهما ورب المشارق إن faatu ba pare nga jàngal ñu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها بسم الله السلام عليكم السلام ورحمة الله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

إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم